boo gisee plateau bi ni ma ko mujjee def boo gisee plateau bi niñ ko soppee nii nga xam ne ay ndaanaan ñëw nañ gunge ndaanaan euh, du ma ko présenter gum léegi ñëpp xam nañ kan la ñi ko xam xam nañ kan la ñi ko xamagul mooy ñi juddu ay 2000 ak ay bërki dem boo njaay fekk ngeen peut-être mu xaw a génn réew mi am fu mu demoon mais ñëwaat na ndaanaan yi nga xam ne ñoo yëngu ci culture ndaanaan yi yëngu ci art xam nañ kan la balaa muy wax di présenter boppam di wax mooy kan dama koy bàyyi ñu ambiance tuuti mu nuyoo ci li nga xam ne moom la mënee Kisma salaamaaleykum ma danu ko ni mu nuyoo danu ko ni kis ma jabate mu sëriñ fàllu nuyool nga xam ne moom lu mu am sëñ fàlloo ko gënal ku mu am sëñ fàlloo la ko gënal waaye kis ma moom sëriñ fàllu rekk la yaakaar xam ngeen ni gëjoon nañ koo gis namoon nañ ko lool man li ma gën a neex ci tëgg mi bëgg naa ambassadeur man bëgg naa ku jël culture réewam di ko yóbbu fu ne ci àdduna waaye bëgg naa ku gëm boppam bëgg naa ko bëgg boppam waaye bëgg naa ko am wasila kisima bu tëggee bu tëgg ba neexee mu daal di sukk daal di eh, raay daal di siyaar yeggali tëgg bi waaye li neex na waaye kisima maa ngi lay siyaar <laughs> mais Baye Fall foo nekkoon nii sa waay tarkalla sama cat ak sama catu morom ah, sama xaali xëy na ka yow eh, yaa mën barki borom Tuubaa mën nga yàlla na sa jàmm yaa ngi ma bàyyi la nga nuyoonteeg réew mi wax leen eh, yow la kan ñi la xamul wax wax leen fan nga nekkoon. waaw man maa ngi nuyu ñëpp asalaamaaleykum mbokk yi diaspora bi Sénégal adduna bu ndëng maa ngi siyaat ñëpp. di bëggee ñëpp di santaat ñëpp. di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm sax liggéey bi ngay def tamit yàlla na barkeel ah di ziar sama rakk ju baax ji Pa Moussa muy waral lépp tey waaw waaw Pa Moussa Sonko di sama rakk waaw ma fekkee carrière lu bari di ko encouragé ah di nuyu mbokk yi di leen xamal ne man taalibi Sëñ Fallu dellu mais du may toog mais Canada laa xaw a basé jamono yi. nekk ci waar bi ba tey waaw gëj naa fi nag yëngal yu mel nii ma ne woon nag naa dellu si waat ñëw euh, suqaliwaat mbir mi. Mhm, comme mhm. yàlla dafa dogal tu tànk yi ñoom ñëpp maanaam waaw dañ may bëggee. bëgg ma ñiy bàyyi jàng ñiy bàyyi lu neen ndax ndax jëmbe mhm, gi. donc di ma safoo di ma ndamoo. donc ça fait deux ans trois ans doxaluma ah boobu ba tey maa ngi déggoog ñoom ñu ne ma nag père foog nga ñëw yëngalaat. moo waral ren ma ñëwaat. am nag benn xew-xew bu may waajal. am nga looy waajal am na lu may waajal. am nga looy mais boo ñëwee fii rek ngay joué wala fële nga nekk da ngay joué. non fee tamit damay dóor. yaa ngi am mais yaa ngi am mais. waaw waaw waaw maa nga fa maa nga mm-hmm. yor sama groupe foofu. dama yor ñaari groupe traditionnel maanaam jëm jëmbe cung yi nii maanaam naa beneen boo xam ne orchestre la. Mm-hmm. damay def afro reggae di sikar gi laay jël Mexico waaw sant maam rek donc ñaari style laa yor fee daal. Mhm. waaw damay joxe cours de danse cours de percussion maanaam maa ngi yëngu. juróomi at ci ginnaaw xaw ma fukki at ci ginnaaw ah, ak juróom. Euh, mhm. wala li nga xam ni mooy temps yi ci ginnaaw. dañ doon wax eh, kisima ci Afrique gépp moo fi dàq tëgg moo fi dàq jëmbe. est-ce que looloo ngi euh, yaa ngi ah, confirmé loolu ba tey. maa ngi koy confirmé mu ngi am ba tey. waaw maa ngi a <laughs> <laughs> le coup ñu doxal ñun ba ci kanam parce que dama bëgg ñu ambiance léegi waaw waaw baax na dama bëgg ñu ambiance ah, ñu ambiance wax ci ay thème jeex na mu ngoog ah nga wax ñu loo jëlee fële dëgg la wax ñu li nga bàyyi woon fii ndax am fekkaat nga ko fii yooyu yëpp ñu boole ko daal di koy waxtaan lépp ci jëmbe jeex lépp ci jëmbe waaw yàlla yàlla sa jàmm yàlla kontaan naa Baye Fall kontaan naa waay waay jaageen jëf waay jaageen jëf dañuy démarrer ci grand théâtre xool ki nga xam ni moom mooy ñaatam ba euh, moom itamit euh, mu won ñu ambiance bi nga xam ni euh, moo xewoon foofu ca Miss Sénégal ca grand théâtre ñu xool ko te ñëwaat léegi léegi léegi ci ambiance ci Dakar ne dort plus waaye beneen invité boo xam ne dañ koy dalal mu ñëw moom daal di way bu ko defee ñu bàyyi kis ma mu noppalu ak ak groupe am jëlaat ko léegi mu ñëwaat ci plateau bi yëngal nee naa tey ndaanaan yi bari nañ fii waaye ambiance dina bari